TFM ci boppam ñoo doon dafa gaawantu bi ci ab enquête lijjanti ci dëgg-dëgg lan moo tax fréquence su stv yi ñu koy sàcc ak ñan ñoo koy sàcc commandant Adama Niang bu section de recherche gannaaw gi ci la jéem a ki nga xamante ni moom mooy directeur juridique bu Eutelsat ndaxte moom dong moo mën a wax ci li nga xamante ni mooy coow lii 2STV li ñuy jiiñ waa TFM dëgg la wala déet ki nga xamante ne ni moom mooy directeur juridique bu hôtel 7 di wuyoo ci turu Michael Fredlich moom ci boppam moom moo mujj revenir ki nga xamante ne ni moo di commandant Adama Niang bu brigade de recherche xamal ko ne ko nag dëgg la El Hadj Ndiaye wax ne dañuy sàcc ay fréquence am la te ñi koy def du ñenn ñu dul waa TFM Michael moom nag lettre bi nga xamante ne ni jox na ko Adama Niang nekk commandant brigade de recherche le 25 mai 2021 ci la ko ki nga xamante ne ni moo di commandant Adama Niang bu brigade de recherche recevoir lettre bi bi daal di koy saytu xool xam ne TFM ci boppam ñoom ñooy sàcc ci fréquence stv ci la gaawantu daal di bind lettre moom tamit def ay convocation woo ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa TFM bokk na ci ki xamante ne moo di Ndiaga Ndour ak ki nga xamante ne moo di frère am di Bouba Ndour yëf yi nag fi mu toll nii dafay gën a yaatu ndaxte ni ki démb ci la waa section ne moo di Ndiaga ba jamono ji moom ci biir kaso bi atte yi nag nañu jàpp ne mën na sévère lool ci kawam ndaxte depuis 2018 waa TFM ñu ngi sàcc fréquence su 2STV ba li mel Michael Friedrich mi nga xamante ni moom mooy directeur juridique bu Eutelsat nekk ca diwaanu France dëggal na ko ci lettre bi nga xamante ni jox na ko commandant Adama Niang le ne waa TFM ñooy sàcc fréquence su 2STV yi te sàcc gi nag yàgg na loolu ndaxte depuis la li ni mel nag buñ ci sukkandikoo yëf yi mën na sévère lool ci sanction yi nga xam ne moo nar a ñëw ci Ndiaga comme waa TFM est-ce que Ndiaga dong la joxoñ baaraamu tuuma ca biir TFM diggante ak nga xamante ni mooy Youssou Ndour ba mu xam ne moom du moromam El Hadj ñu bëri ñu ngi wax ni bokk na ci li koy gën a merloo moo ci élément am yi nga xam ne di ko am e jox ko ki nga xamante moo di commandant Adama Niang bu brigade recherche gendarmerie bu Dakar moom directeur juridique bu Eutelsat sax moom dafa préciser ne gis nga TFM mii ci sàcc bu métti la nekkoon ci kaw 2 taamu ci woon benn de droit amul benn autorisation di sàcc fréquence su 2STV yi te demandé wu ci benn yoon autorisation ay fraude dëgg la li ni mel nag buñ koy topp ba topp mën nañu xaar ay sanctions yu diis ci kaw njagandoon ñi ak waa TFM bu dépassé sax li nit di xalaat tam moo ñu teg télévision bii di TFM pour quelque durée ak lu ci xew coow li moom mu ngi soog a démarré jamono bi mu ngi en garde ci gendarmerie ñuy xaar enquête bi fan lay mujj ji ak tam buñ a yaatu allah